lii ñuy def du luy rafet ci deru politicien Sénégal bu la neexee tey nga weex tal ba ñu ne kii dafa weex dafa lii bu ginnaaw suba cest à fu ñuy wuteelu verte yow la ñuy jël la ñaaw te damay wax ni Omar Sarr dama koy wax fii ñu ko dégg deful su dul continuer bëgg bokk bokk ci marionnette yi bëgg continuer liggéey bi nga xam ni bi Abdoulaye Wade nekkee président muy déséquisation bi ñu waxoon ñoom Macky Sall nekk ci tey moom dañ koy utiliser ci marionnette yooyu pour xeex ak Idrissa te je crois que am na droit dem parti bu ko neex mu dem mais war na nangu lépp ba mu des honnêteté intellectuelle am wayu ko may mi wëlbatiku di nekk euh, yatu xeexukaayu régime bi contre contre Idriss man jàpp naa ni du du lu rafet te it am na wax yoo xam ne amul sens parce que Omar Sall bu toogee di wax ay waxi milliards te toogoon fii yàggul naan Idriss dafa set wecc ah kenn du ko topp 15 mais kaset yaa ngi fi bu fekkee dañuy wax rek te bëgg a wax ñun waruñu koo wax ñun nañ génnee CDM yàggul génnee euh, conférence yi mu fi def muy ay janoo bi ay fu nekk toog na fa wax ko fa nañ ko génne léegi nag moom mu dem expliqué wu ci ñaari changement de comportement yoo xam ne matul juróom at nga taxaw ne nit ki dafa weex taal wëlbati ko waxtee naan dañ leen intégrer ci ay milliards dafa ñaaw te beneen bi pour terminer ci Omar Sarr du ma ci waxaat mooy wut Thiès base yomb na amul problème mais day fekk nga am ko fi nga rek mais quand même Omar Sarr buy reyante Jurbel la war reyante ji ba am fa lu tax Macky Sall war koo jox confiance mais yow yaa ngi fàqee Jurbel école sax mosoo fa gañe wëlbati ko ñëw Thiès naan da ngay bëgg a def fii ak da ngay wut non et puis di def ay tricheries parce qu'ils on pris des les tissus de de réew mi wëlbati ko biir Thiès jox ko ay nit ne leen dañuy ñëw pour def comprendre jàppale Idrissa ñi ñu fa yóbbu ñoo ko wax et puis la mobilisation qu'il y avait c'est la paire c'est pas Omar Sarr ñun dem nañ fa.